wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada muhammad xayra xalqillah mbokk ñu leen di ziara waxoon ngeen arab ñeenti maskaram fatxa kasara damu sugaan fatxa bi jël nañ ko mu jeex léegi tey ñu fas yéen ànd ak yéen si kasara bi muy al xuruful maksuura maska yi nga xamante ne ñu koy def si suuf incha allah rabbi ñu commencé ak yéen léegi bu leen fàtte ngeen wut téere bi muallimul qiraa te tamit formation auxiliaire lañ wax ngeen si def seen yitte di jël lu bare bare yi bi ti si ji xi xi di zi ri i bi ti si ji xi xi di zi ri loolu eh, lañ leen indiloon tey ngeen maîtriser ko bu baax a baax surtout xool ko nag xàmmee ko ni ñu koy bindee parce que bu ñooy jàng jàng mu gumba dañoo bëgg loolu leen jàng rek ngeen xàmmee ko